Elhadj Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéenikaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyndoo yi nga xam ne nag moom la ñu ci réewum Sénégal jeex na di xam ne ne nag am ne daal moom la ñu joxewoon ji élection yi daanaka féete boor waaw

yëngu-yëngu yi nga xam ne nag jot naa am ci Sénégal waaw lu ci mel université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dañu xamal ne kay moom la génn jamono ji nag bari na ñoo xam ne teg nañ leen loxo waaw critique ñu xamal ne te ñoo ñee ñu teg loxo nag ñi ca ëpp nag ñi ngi nekkee ci ku jéeg Sénégal waaw critique na ëpp jamono ji ña nga ca kaso ba l'observateur ne ko mooy moom eggale colonel Abdourahmane Kébé waaw jamono waaw da koo fësaloon waaw daal di jamono ji nag jàpp nañ ko gannaaw ba ñu ko jàppee nag ca Ndar gee ko yóbbu fi nga xam ne nag moo di Ndakaaru ngir bin yéene kaay di yéene bugaan ngay gi di xamal ne kay ku yóbbu waajal sa bopp waaw ci réewum Sénégal ak jaay doole gu metti moo fi am ku ñu neex rek mu jàpp waaw jàppaat woote mel ni ku koy tontu daal di xamale kay jamono ji jàppaate gi nga xam ne Macky mi ngi koy amal ci réewum Sénégal waaye lii nga xam ne daal Macky mi ngi ko nekk ci réewum Sénégal amul dara loo xam ne dañu ko ciy ragal wala sax dañu ko ciy dellu ginnaaw waaw di xooxalaate gi nga xam ne nag moom la nekkee fekk leen ma ci réew mi quotidien moom nag ba mu xëyee la ko ñor moo di lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu wér-gu-yaram waaw centre pédiatrie bi nga xam ne daal dañ faa nekk am feebaru xool jamono ji ñu war leen a waaw bu ñu deful nànk xale yi danañu jeex ndax am ne ñu kale kàkk waaw ñeneen ñu kale kàkk waa écrifage maa nga ci suñu làmb waaw yéen bi di xamal ne kay écrifage kay jamono ji ku ko ñaanal mu jël waaw ko tufi ñu raaye ko waaw ndax jamono ji ay ñaan la soxla dëgg gannaaw nag jafe-jafe yi nga xam ne daal moom la nekk ñoom écrifage ñi nga waa ku ci mel ni Papa Sow Gris Bordeaux ñoom ñoo gën a nekk ñëpp ci ay jafe-jafe yéen i kaay bi dañu xamal ne écurie Fass nag nekk ci ay jafe-jafe yu métti